بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala mu ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yàlla na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk yi ba tey noo ngi ànd ak yéen ci téere yàlla bi tabaraka wa taala ba tey ñu toll ci suratu nisa bi iznillahi tabaraka wa taala ñuy jël tey ñeenti aaya muy aaya 123 124 125 126 ñeenti aaya yi nekk sunu kanam buur bi yàlla tabaraka wa taala dina ci jàngal dina ñu ci jàngal juróomi mbir bi ci njëkk bi ñu war a jële ci aaya yi mooy ma inda allahi la yunaalu bi tamanni walakin bil imaani wal amalu saalix aw taqwa wa sabri wal ixsaan bokk jurit yi ñun ñëpp nañu ànd xam ne li nekk fa yàlla tabaraka wa taala kenn du ko am ci ay mébét la nekk fa yàlla ci ay xéewal ak ay yiw ak ay tiyaaba kenn du ko am ci mébét kenn ku nekk ci ñun bu dee da ngaa bëgg am ci yàlla dara foog nga def dara waaye toog di mébét mébét lan mooy mébét mébét mooy lan ah di xalaat ay mbir yu ñëwagul loolu mooy mébét mébét mooy lan yéen ah ngay bëgg mbir yu ñëwagul ak lan mébét mooy lan mébét ah ngay yaakaar benn affaire te yow defoo dara misaal boobu dafa sori ci àddina mooy nga naan man insha allah suba maay nekk président de la république te yow jaaroo yoonu ñi nga xam ne ñu bëgg nekk président fi ñuy jaar amoo parti doo politicien doo nangam nga munta nekk ngay xalaat ëllëg di nga nekk milliardaire te yow jaaroo ci yoonu gars yi am millions yi fi ñu jaar jaaroo ci yoonu liggéey yaa ngi xëy tëdd dina la loolu mébét yàlla nag subhanahu wa taala ay mbiram ay mébét joxewu ko tëdd fii dina law di yaakaar aljanna wala ñuy yombalal la aljanna loolu moom nekkul fa yàlla tabaraka wa taala ki bëgg am la nekk fa yàlla lu muy njëkk a def mooy am imaan ngëm bu dëgër wala amalu saalix jëf-jëf ju baax wa sabr muñ wal ihsaan rafetal yépp ku nekk ci ñun su fekkente ne li la yàlla di wax li la yàlla dig da nga cee bëgg am dara ah foog nga def dara waaw olof yi sax dañoo ne ku bëgg dara day def dara kenn ci ñun du dem tëdd dina la ba pare di yaakaar alal nag ah déedéet waaw moom kay bu fekkee da ngaa bëgg surtout nag ku bëgg lu rëy foog nga def lu rëy mbokk yi aljana dafa rëy wala daf tuuti wallaay dara gënu koo rëy dara gënte rëy dugg aljanna comme da nga bëgg dugg aljanna comme danoo bëgg dugg aljanna lan moon war mooy nu am imaan ngëm ngëm ngoo xam ne day ànd ak jëf ngëm gu àndul ak jëf comme ni sénégalais yi ñu koy waxee loolu demul fenn aaya yu ngeen dégg ci alquran yàlla di wax al iman lu mu ciy teg al amalu saalih jëf ju baax aaya yépp yàlla di wax ne allazina amanu wa amilu salihaati lay wax kon ngëm gu ànd ak jëf waaye est ce que foofu rek la wa taqwa na ànd ak ragal yàlla na ànd ak muñ na ànd ak rafetal ci nit ki li muy def loolooy lu njëkk lu ñuy jàng ci aaya yi ñaareel aljaza asaru tabii lil amal wa huwa maana man yamal suan yujza bihi aljazau min jinsil amal gars yi danañu wax ne li nga def rek loolu lañ lay fay kamaatu diinu tu daanu aljaza asaru tabii lil amal fay li ëpp ci nit li muy def loolu lañ koy fay da ngay dégg olof yi ne jàppkatu jaan jaana koy mujje kon loolu la def mécc kon bisa ngi ñëw mu am ci dara da ngay dégg benn agresseur ñu ne la gars yi de rey nañ ko nga ne ah loolu da bettuma woon maanaam ci li muy dund di ko def bis bu fay bi di ñëw loolu lay am moo tax yàlla ne man yaamal suu an yujza bihi képp ku def lu bon danañ la fay lu bon li nga def parce que borom bi tabaraka wa taala amul lu bon lu muy fayaate sunu borom subhanahu wa taala moom amul lu bon moom li mu xam ak li mu yor mooy lu baax mu da mu ne man jaa bil xasanati falahu ashru amsaliha boo defee benn bu baax yàlla fay la fukk lu waral loolu mooy moom li mu yor mooy lu baax mu ne boo defee benn bu baax mu dollil la juróom-ñeent nga am fukk waaye boo defee lu bon du amul lum lay fay de léeg-léeg nga dégg ñu ne ku def lu bon yàlla loolu la lay fay déedéet yàlla amul lu bon lum lay jox moom benn bu bon boobu nga def moom la lay bàyyee. moo tax sunu borom bëgg noo xamal ne ci teel lépp lu nu liggéey loolu la nuy fay ku def lu baax wax dëgg yàlla lu baax lañ lay fay ku def lu bon lu bon dong ngay am. wa man yaamal min alsaalihaati sunu borom dinu xamal ne képp ku def lu baax min zakarin aw unsa moo xam góor nga wala jigéen problème bi fenn dong la nekk ba nga koy def wa huwa mu'min gëm nga wala gëmoo yàlla xoolul ban xeet nga bokk yàlla xoolul dangaa gàtt wala dangaa ñuul wala dangaa ñaaw wala dangaa rafet araam nga wala nit ku ñuul nga yàlla xoolul loolu inna allaha laa yanzuru ila suwarikum wala ajsaamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum yonent bi nee na yàlla du xool seen yaram yi yàlla du xool seen jëmm yi ban xeet ngeen bokk nga yàlla lu muy xool xol yi ak jëf yi aaya bi lum ñuy jàngal mooy képp ku def lu baax góor nga walla jigéen nga almuhim yow ba ngay def jëf ji am na lu la animé ba nga def ko lan la wa huwa mu'min danga am ngëm ngëm googu moo la animé moo la yëngal moo la yëkkati ba nga jóg def lu baax fa ulaayika yadxuluna aljalla yàlla ne ñii ñooy dugg ajjana kon ku bëgg a xam ñi dugg ajjana yàlla wax na mooy ñan ay góor lañ ak ay jigéen yoo xamante ne la leen dugal aljanna mooy jëf ju baax ju ñu def waaye jëf ji dañ koo laltaayal bala ñu koy def am ngëm bi ñu amee ngëm ba pare nag dañoo jóg ci def lu baax xaaruñu ma sàmba xaaruñu demba dañoo jóg rek daal di song jëf yu baax yi daal di koy def ñu faatu borom bi tabaraka wa taala daal leen di terale aljanna daal di leen koy fay mbokk jullit yi kon ci biir aaye yi danañ dégg ne àjjana ku nekk mën na faa yóbbu boppam jarul toog te dina law naan na ma fa diw yóbbu lu tax yàlla dane wa man yaamal min alsaalihaat képp ku def lu baax saalihaat dafa bari de waaye yu baax yooyu ku ci def dara min alsaalihaat yu baax yi li ñuy bari bari bari bari bari bari yow am nga ci loo ci def tuuti moo xam yow góor nga moo xam jigéen wala yàlla waxul foo dëkk yàlla waxul ban xeet nga bokk yàlla waxul ban nationalité nga yàlla waxul ñaata at nga am dafa ne min zakarin aw unsa góor nga wala jigéen waaye ba nga koy def li tax nga def ko mooy dangaa gëm yàlla wa huwa mu'min mu ne fa ulaayika yadxuluna aljanna yooyu ñooy dugg aljanna ñetteel mooy fadlul islam ala sa'iril adyan danañ jàng tey ngëneelu islam ci kaw diine yépp diine joo mën a dégg ay nit nekk ci diine jooju islaam a ko gëm diine joo mën a dégg ay nit nekk ci yàlla reconnaître diine boobu lu dul islaam ndax loolu ñuy wax diine sax ci yàlla lan la inna diine inda allah al islam yàlla benn diine boobu dong la am nit ñi nag ñoo fi ñëw créer ay yeneen diine créer ay tarixa créer ay yoon amma yàlla subhanahu wa taala benn diine la am benn diine boobu mooy islam ci la yàlla yónni aadama mbooleem yonent bu musa ñëw ci kaw suuf ci nga dund yonent yàlla muhammad moo mujjee ñëw tëj islam boobu amatul beneen diine buy ñëw moo tax yàlla ne inna diin inda allah al islam yàlla wax na ci alquran wa man yabtaghi gayra al islaama diinan falan yuqbala minhu képp ku jël leneen lu dul islam muy diine kenn du la ko nangu waaw islam mooy al istislaamu lillah mooy nga jébbulu ci yàlla loolu mooy islam léeg-léeg nga dégg ay nit naan man ci diine islam laa nekk te boo leen ne luy lislaam ñu ne la de lislaam mooy diine julli di islam mooy nga jébbulu ci yàlla al istislaamu lillah nga jël sa bopp comme gaa ñi niñ koy defee taxañ sa bopp loolu ñu naan taxañ xam ngeen taxañ bu doon yére la yére nuñ koy taxañee da ngay tàmbale ca lépp laxas ko ba mu dëgër ah taxañ ko ba mu nuroog balu tangs noonu ngay def sa bopp da ngay taxañ sa bopp ba mu dëgër nga jox yàlla loolu mooy jébbulu loolu mooy al islaam mooy jébbulu ci yàlla istislaamu lillah doo yem ci loolu de wal inqiyaadu lahu bi taa après nga wommutu topp ko moom yàlla da ngay wommutu nangoo koo topp wala fi dañuy wax ne ku ñuy diri doo taamu fu sa ndong di jaar yàllaa nuy diri nag maadaama yàllaa nuy diri kon waratuñ wax noo yàlla jaaral mbedd mi fii dafa am ay xaaxaam de non fii dafa am ay xeer de kon sama ndong li day tës tësi déedéet waaw dafa am benn pël bu bu jëloon ay xaram dugal ko ci toolu jaambur waa ji ñëw ne ko da da koy dóor rek mu ne ko boo ma laalee di nga xam ne lappetaake laa tàkk mu ne ko yaa lappetaake nga tàkk mu ne rek waa ji di dàq fas bi rek këf tànk bi ne ko di nga xam ne takkoo daa sa taaki xam ngeen daa sa taaki ah daa sa taaki mooy lan waaw waa jàpp tànk bi rek diri kook fas bi bopp bi di tëltëli ne ko garab bii moom téere bi moom takkoo ko téere kenn du la diri takkoo ko loolu mooy daa sa taaki kon islam dafa am ngëneel fadlul islam mbokk yi nit ñi bala ñu doon xam ne islam dafa am ngëneel ñu nangu dund islam tey parti politique yi bu ñu nangoon wàcc dem toog tëdd di nelaw ñu jël congé un an ñu bàyyi mbir mi ak l'islam moo tax fu l'islam bëgg a gouverner rek gars yi xam nañ dañuy bañ parce que xam nañ ne nit ñi bu ñu ko ñemee dootuñu ko bàyyi te dina leen jaral ñu rey leen ci parce que islam mooy dund jàmm mooy dund àjjana ci kaw suuf loolu mooy l'islam dund jàmm ci kaw suuf nit ñi mënuñu dund ci kaw suuf sans l'islam ak ku leen mën a gouver gouverner nag ak lu mu leen mën a dig ndax yàlla li mu programme nit ñi dund ko ci kaw suuf mooy tubaab bi bi mu defaree oto ba pare daf ko daf ko defal li ah catalogue ba pare defal ko limitation bu mu mën a daw wala yenn sax ay ñu ne la soo jógee fii fii ngay jëm fii ngay jëm ah moytul ëppal fii bal sax vitesse yi dañ ko bloqué pour am fu ñu ko yemal yoonu boo demee ci mécanisme bi nga ni ko dindil vitesse yi débloqué li yàpp yëpp laay daw sa bisa ngi ñëw wala wala wala yàlla ni mu bindee àdduna pour ñu dund l'islam boo nee dañuy dund l'islam boobu sans ni ko yàlla waxee du dem yàlla bi mu bindee diine bi bind nit ñi koy dund mu wàccee téere bi nga xam ne ci moom la ñuy xool recopier di dund nit ñi daal di ñëw boxoñ téere boobu teg fële daan ne ñun mën nañu dund jàmm sans yàlla yàlla na toog organiser asamaan ñun nañu organiser suñu bopp suuf ci la nit ñi commencé am jafe-jafe te du jóge fii ba yowmal xiyaamati waaw yàlla dafa reconnaître dafa dafa chronométré ni ñuy dund ci kaw suuf ni ñu war a nekkee yàlla organiser ko li ñu fi war a lekk li ñu fi war a naan li ñu fi war a def léeg-léeg nga gis ñu xiif ci àdduna bi ah d'accord wala du ngeen koy gis est-ce que nit war na xiif ci àdduna normalement déedéet kon lan moo indi xiif gi mooy dafa am ñoo xam ne ci li yàlla séddale ñoom dañoo jël wàllu ñu bëri daal ciy toog ñooñu ñu jël seen wàll nag ñooñu ñu xiif ñi ñooñu ñu sonn ñi waaw ndeysaan da ngay gis koo xam ne nee nañ li mu denc ay lakk jeexalu ko lakk da ngeen lakk de lakk yemuñ ci loolu nga dégg ñu ne ay sëtaati sëtaati sëtaat dañ ciy dund kooku loolu est-ce que jaadu na nga gis fi ñoo xam ne amuñu dërëm nga leen di romb jaadu na loolu mooy ñàkk a organiser dund gi ñu yàlla du organiser woon mu ngo kon islam mooy diine ji nga xam ne ay ngëneelam kenn mënu ko natt ci yeneen diine yi beneen bi mooy sarafu ibrahim alayhi salaam bi tixaasi bi tixaasihi rabbuhu xalilan mbokk yi ibrahima yonent yàlla ibrahim ay ngëneelam màggaayam darajaam foo ko takk weesu na ko buur bu tol ne yàlla yàlla moo ne wattaxaza allahu ibrahima xalilan yàlla nee na man maa jàpp ibrahima mu nekk sama xarit déggu leen wax bi de ibrahima waxul yàlla mooy sama xarit kan moo ne ibrahima mooy sama xarit yàlla loolu réy na de wala ah ndaw si bëgg la ak nga bëgg ndaw si ban moo ëpp daraja si bëgg la da ngay da ngay ñàngal quoi yan saa yi sax nga bañ a joxe dépasse est-ce que dañ laa bëgg wala yan saa yi nga ne ah duma duma joxe dara ah parce que ne la waa gëraawul man dinaa ko res xam nga maa la bëgg ayaya moo lay jëndal ay yére yenn saa yi mais sama alaaji bi nga tabaskee bi nga korité bi xoolal dàll yi est-ce que baax na ci yow nattal mbax na bi ah ngay parce que dañ laa bëgg allahu akbar bokkul ak yow nga bëgg ah yow nag boo bëggee yow tamit da ngay topp di daw di di direeku parce que yow yaa bëgg wala ah léegi nag xool leen yàlla mu ne man maa bëgg ibrahim allahu akbar wattaxaza allahu ibrahim waaw ibrahima lan la def ba yàlla ba nekk xaritu yàlla mbokk yi est-ce que loolu waruñu koo laaj est-ce que ñun bëgguñu waruñoo nekk xaritu yàlla kan ci ñun fi moo bëggoon nekk xaritu yàlla ana ngeen ah waa côté bi kese la ñi bokkuñ ci ah voilà gis nga ñëpp yee leen kële wattaxaza allahu ibrahima xalilan yàlla nee na ibrahima sama xarit la waaw ñun ñëpp waroon nañoo laaj ibrahima yow ibrahima lan nga def ba yàlla bëgg la allahu akbar lan nga def lan nga liggéey ba buur yàlla subhanahu wa taala daal lay bëgg jaam yi li ñuy bari bari bari mu ne Ibrahima day sama xarit la waaye ku jàng alxuraan nga jàng histoire Ibrahim di nga xam ne Ibrahima am na lu mu def te deful lu ndaw de ah Ibrahima yàlla reyloo na ko doomam mu nangu koo rey Ibrahima yàlla dugguloo na ko néegu góor bi mu nekkee mag mu nangu koo def mooy lan yàlla jonguloo na ko. te mu ngi mag am juróom-ñaar fukki at et quelque yàlla mu ne Ibrahima dugal néegu góor Ibrahima nangu koo def kon Ibrahima du ku ndaw du hasard yàlla daal di romb ñëpp ne Ibrahima mii sama xarit la. su ngeen jàngee alxuraan di ngeen gis kenn moo ëpp lu yàlla wax turam ci alxuraan moo ëppale Ibrahima kenn ci yonent yi kenn mooy. Moussa moom donc ginnaaw Moussa Ibrahima ci tegu. ca baqara la yàlla tàmbalee wax ibrahim ci ban saar ci saaru suuf yi la yàlla mujjee wax ibrahim suratul ala te foofu ñoom ñaar sax ñoo fa ànd gis nga inna haza la fi suhfi ula suhfi ibrahima musa kon du azar yàlla ne ibrahima sama xarit la allahu akbar wattaxaza allahu ibrahima xalila waqad sharafa bilxillati muhammadun sal allahu alayhi wa sallam wa fi lsahihaini annahu sal allahu alayhi wa sallam xatabahum axiru xutba fa qaala amma baad ayuha nnas falaw kuntu muttaxisan min ahli lardi xalilan lattaxastu aba bakrin ibnu abi quhafata xalilan walakin saaxibukum xalilullah yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom wóor na ne mooy soppe yàlla bi tabaraka wa taala ñëw na ci saxiix yonent alayhi salaatu wasalaam mu ne xutba ci xutbaam bu mujj mu ne ginnaaw loolu yéen nit ñi su ma doon ut ci kaw suuf xarit kon day aboubacar mi laay def xarit ndeysaan su ma doon ut ci kaw suuf xarit danaa jël aboubacar mii def ko sama xarit waaye nag mbokku diine lontu bi lu muy bañ muy jël ñi bàyyi ñi jël ki bàyyi kee waaye mu ne ñëpp samay mbokk lañ man ñëpp samay mbokk lañ loolu ibrahima am na ko ci yàlla tabaraka wa taala juróomeel ci aaya yi mooy xina allah taala an sairil maxluqaat yàlla dafa doylu mbindeefi xina allah yàlla ku doylu mbindeefi gis nga sunu julli yi ñuy def sunu woor yi ñuy def ñëw jàng alquran ñëw tafsir kan lañ koy defal ah kenn ku gàtt xel ne man bis bu nekk yow yàlla ma dem tafsir samedi ah man bis bu nekk ma yow fajar dem jàkk yow yàlla kon su ma la ñaanee da nga maa war a may di imposer sa bopp déedéet in ahsantum ahsantum li anfusikum ku nekk fii li ngay def sa bopp nga ko defal defaloo ko kenn ku nekk laa wax ci ñun fi nga toog li ngay def ci lu baax yow la engagé sa bopp nga ko defal du yokk ci yàlla dara te defaloo ko ngir yàlla balaa nga doon xam ne sa bopp nga ko defal bàyyil parce que soo bàyyee benn bis asamaan si day daanu suuf si day pëtëx dafa am biddéew yi daanu ndax yow yaa ngi yaa ngi julli yaa ngi woor yaa ngi def lu baax loolu tax asamaan bi nekk ci kaw lépp normal su ma arrêté rek affaire yi daanu ah mukk ci àdduna yonent bi nee na asamaan waa asamaan asamaan ñi fa nekk ñaata lañ am na benn néeg bu tudd baytul maamuur moo tiim kaaba gi bés bu nekk ñaata malaaka ñoo fay dugg juróom ñaar fukki junni malaaka ñoo fa dugg suñu duggee duñu duggaat am na ñu naan suñu duggee duñu génn bis duñ génn de duñ fa duggaat lu tax ñeneen ñooy ñëw beneen bis te bis bu nekk juróom ñaar fukki junni dugg fa jinne yaa ngi jaamu yàlla malaaka yaa ngi jaamu yàlla mbindeef yaa ngi jaamu yàlla kon doomu aadama cundum wala doomu aadama ak ginne suñu lànkee ñoom ñaar ne jaamu yàlla lan lay wàññi yàlla ñent bi nee na asamaan ak suuf bu ñëpp àndoon jub xocc kenn dëngul du yokk ci nguuru yàlla gi tarfatala ayin su ñëpp dëngoon baraw firaaw na du wàññi ci nguuru yàlla gi tarfata ayin kon yàlla alquran wax na ko wali inna inna allaha ganiyun anil alamin yàlla dafa doylu mbindeefi mais léeg-léeg nga dégg ci ay wax yu doy waar ci Sénégal léeg nga dégg ñu ne Sénégal li fi nekk nekkul fenn yenn saa sax nga dégg ñu déborder wax jooju ëppal ko ne li fi nekk bu ko yàlla xeebee ñàkk man dégg naa ko fa saa yi wax jooju li fi nekk bu ko yàlla xeebee ñàkk ak maa ko dégg maanaam fii lan moo fi nekk ba yàlla di ko xeeb mbokk yi maanaam ñi koy wax ñooñu dañuy réyal dëkk bi naan nit ñaa ngi jaamu yàlla ah li am fii yuux yi guddi sabar yi ndënd yi jakar-jakar yi dem dikk gi loolu amul fenn waaw nan dëgg de waaw moom dëgg bu la li am fii amul fenn waaw moom wax dëgg la waaye nag lii fi nekk moom bu ko yàlla xeebee ñàkk moom musiba la moom loolu moom du dëgg ndax fii dara dafee nekkul nag ba yokk yàlla koy wàññi màkk sax di fa nekk yokkul yàlla kaaba gi kan ci yéen moo mës a gis kaaba gi amul nit léeg-léeg imaam ñëw fii julli de ñaari nit nekk ci ginnaaw wala ah jàkka joo dem yenn saa yi sàpp première sàpp bi du fees fan yi dem naa benn dëkk boo xam ne dama ne woon c'est inutile ñii ñu leen defal juma di yuuxu di yuuxu may leen ñu juma may leen ñu juma ñu leen ñu may leen juma juma bi du am fukki nit waxuma fajar beeg suba de juma bi laa wax du am fukki nit déggu leen lu ma wax de ah waxuma julli faj kii de vendredi bi laa wax vendredi du am fukki nit ñu li ñu doy juma ndeysaan benn arab dafa mos a jógee ci dëkk kaw yi dëkk dëkk arab yi mu ñëw comme moom dafa maye ay jumaa yu bëri mu ñëw ànd ak gars yi muy contrôlé mu ne yéen li ngeen li ma tabax ci ay jumaa bëri na de gars yi ne waaw mu ne wan leen ma jumaa yi mu dàkk waxtu yu juróom nag jàkk bu mu dem du fa gis nit mu ne mu ne mu ne yéen yéen jàkk yi xanaa ci xari kii ngeen ko tabaxal rabu àll yi ngeen ko tabaxal jumaa yi jàkk yi rabu àll yi ngeen ko tabaxal mu ne yéen jàkk yi ma ne gis mu nit ñi te yéen yéen a wax ni dëkk bi tuub nañ tabaxal nañ leen jumaa mu ne ana ñooñu tuub te jàkk dañ ko war a tabax pour lan pour dundal ko pour dundal ko yàlla ba mu tab ba mu waxee Ibrahima tabaxal kaaba gi lan la ko wax ah yàlla bi mu ne Ibrahima tabaxal jàkka ji lan la ko wax après ngeen dundal jàkka ji ci lan ci ruko ak sujud ak lan ah wa azin fi nnaasi bil hajj yaatuuka rijalan wa ala kulli damirin yaatuuna min kulli fajjin amiq li yashhadu manafia lahum ala loolu mooy mbir mi mooy dañu war a tabax jàkk pour dundal diine waaye du question tabax jàkk ba pare dem tëdd di nelaw kon yàlla dafa doylu nit ñi suñu jaamoo yàlla sunu bopp lañ ko defal buñ jaamul yàlla perte nan mbokk jullit yi yàlla doylu na nit ñi kon lii mooy aaya yi ñuy jël tey أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن وهو محسن واتبع ملة إبراهيم هنيفاً واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا سنو برام نينا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب آية بيلي كو تخوات ñaari julit benn julit ak benn yahud ñoo doon puukarante puukare yahud bi ne ko sunu diine moo njëkk seen diine sunu téere njëkk seen téere sunu yonent moo njëkk seen yonent kon sunu diine moo gën seen diine jullit bi daal di koy tontu wa radda alayhi almuslim bima huwa alxaq fa hakama allahu taala baynahum jullit bi daal di koy tontu li nga xam ne mooy dëgg yàlla subhanahu wa taala daal di wàcce aaya bi mooy laysa bi amaniyukum ayuha almuslimin ولا أماني أهل الكتاب من يهود ونصارى أي ليس الأمر والسعن بالأماني العذاب منا مبت ليس بأمانيكم ديدن نكل لين دي مبت دي نان ñun ñoo gën le déedéet ñun ñooy dugg aljanna ñun ñooy nangam ñun ñooy nangam loolu wax kese la pourtant niñ koy ni ko gaa yi waxee fii noonu koy déggee wax jooju ñu koy wax ci tarixa yi ak mbooloo yi ñun ñooy nangam yéenay nangam kan moo leen nommé loolu kan moo leen ne yow nangam boobu ci nga bokk yàlla nee na wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu na nit moo tax lu garaaw la ngay tuddoo dara naan man moom laa kan moo la ko nommé ku la wax yow loolu nga gaa yi ba ñu ne dañuy labbewu ñu takk ay jabar mënuñu ko respecté yàlla ba mu leen di tontu lan la leen wax ibtada'uha ma katamnaha alayhim fama ra'awha haqqa riayatiha yéen yéen a ko créé de yéen ne woon da ngeen di labbewu pour jaamu yàlla waaye xam ngeen ne mun leen ko respecté sax ndax ñu ëpp ci yéen dañuy tëb miir tooñu ma leen de wallahi dellu leen ci suuf si tooñu ma leen de yàlla seede na loolu waaw mu ngoog kon laysa bi amaaniyikum nekkul li ngeen di mébét wala amaani ahlul kitaab nekkul ahlul kitaab lu ñuy mébét déedéet ku nekk naan yow yaa gën le ñi ñee dugg àjjana ñee dañu dugg ñun nangam déedéet yàlla nee na man yaamal su an yujza bi yéen ñooñu yéen jullit ñeeg yéen yéeféer yi ku ci def lu bon rek ma fa ma ngis ko gis nga waaw islaam a ngi nii de gis ngeen yàlla ni maandoo normalement bu yahud yi di di faral seen bopp chrétiens yi taxaw fee di faral seen bopp jullit yi di faral seen bopp ku nekk naan ñun nangam ñun nangam dëgg-dëgg ñun suñu xel lan la waroon nangu bu yàlla di di juger lan la suñu xel waroon nangu yàlla faral julli bi ah déedéet yàlla ne déedéet toog fee rek tëdd di nelaw nit ñi di julli jullit bi nga xam ne du julli moom dafa tëdd di nelaw xamul islam mu fekk gars yi di werante mu naa leen eh eh ñun ñooy pee laa wax ñun ñooy pee nga naan waaye yéen kooku peem boobu fu mu ko teg moo ñee ñoo yem di yéen saa yi ngeen dégg ko nga dégg ku ne de mais yéen da ngeen ñu naan sàngara baaxul wala nangam baaxul mais maanaam booy jullit yi ñooy ànd di ko def wala. ah léegi nag booy jullit yooyu di ànd ak kii ba pare naan ko booy tuubal li ñu doon wax waa ji tuubal na nga tuuban boo tuubal dootu ñaan ne mu ne waa léegi bu tuubee lu may def danañ nga nekk jullit mu ne mais mais yéen ay julli ngeen maag yéen ñooy ànd mais bis bu nekk ñooy toj kaas yi kon kay bàyyi leen ma rek comme yéen man tuubul tuubu ma te ñun ñooy ànd maag yéen ñooy defandoo lépp gis ngeen waa ji yoroon benn tubaab bu jigéen di ko bëgg a tuubloo waaw di ko jox ay livre bu ko takk ndaw si di liir di liir di liir ba bopp islam fees bopp bi ndaw si na ko damay tuub mu daal di koy yóbbu centre islamique xaw ma France la xaw ma Angleterre xaw ma fan tuubloo ko ah États-Unis daal di tuubloo ndaw si ndaw si tuub ba pare nag ñu ne dañuy def mariage bi ndaw si ne ko déedéet yow kay doo ma takk yow ndax téere bi li muy wax yow doo ko def nañ ma wutal keneen ku ko ku baax ku koy def kooku ku mel noonu nag tey bu taxawee naan di diingat ñee est-ce que dëgg-dëgg moom la yàlla war a àndal moo tax yàlla buur bu maandu la yàlla ne leen déedéet du li ngeen di wax de yéen ak yahud li ma leen di wax mooy man yaamal suu an képp ku ci def lu bon yujza bihi dañ la koy fay moo xam jullit nga moo xam yéeféer moo xam nasaraan yàlla li mu xam rek mooy nga tegu ci raay bi nga def lu baax mu ne wala yajiduuna lahu min dunillahi waliyan wala nasira wala yajid lahu duñ ko fekkal mukk moom yàlla min dunihi keneen ku dul moom waliyan ku ñuy féete wala nasiran du ku ñuy dimbali déedéet képp ku jaamul yàlla ëllëg yowmal xiyaam doo am ku la faral doo am koo féeteel doo am ku la dimbali kon bu fekkee da ngaa bëgg ku la dimbali wala nga bëgg ku féete say mbir wali wala nga bëgg nasir ku la dimbali kon fexeel nga jaamu yàlla tabaraka wa taala nga góorgóorlu sa kéemtalaayil kàttan kenn du wax doomu aadama du def bakkaar waaye saa yoo defee bakkaar jógal nga tuub nga dellu ci sa borom yàlla nee na wa man yaamal min asalihaati képp ku def ci yu baax yi yu baax yi ñaata la mbokk yi jëf yu baax yi ñaata la kan moo ko mën a compter fii jëf yu baax yi ku ko mën a compter ah kon dafa bëri kenn mënu ko lim waaye loolu lan la yàlla bëgg nga góor góorlu ci waaw minimum boog amal yooyu def waaye yow yu baax yi loo ci def nga man kay defaguma ci dara xam naa temps yi dinaa commencé loolu dem góorgóorlu nga am yoo ci def képp ku def loolu nag min asalihaat ci yëf yu baax yooyu borom bi nee na min zakarin moo xam góor nga aw unsa wala jigéen nga li am importance mooy ba ngay jëf-jëf ji wa huwa mu'min na fekk nga gëm yàlla fa ulaayika ñii yadxuluuna aljanna yàlla nee na dinaa leen dugal aljanna wala yuslamuuna naqiiran kenn du leen tooñ lu toll ne naqiir mooy nufratun fi zuhrin nawaat mooy lu weex loolu lu tegu ci kaw xooxu tàndarma yàlla neen lu toll noonu kenn du la ko tooñ bis boo defee lu baax moo tax yàlla mooy commande balance yi muy peese yowmal qiyam wallahi loo ci mën a teg dina ko peese waaw yàlla du sakk jëf yowmal qiyam li nga def lu mu tuuti tuuti tuuti yàlla dina ko teg ci balance sa tiyaaba yi lu mu bëri bëri yàlla dina ko teg ci balance ba ñu xool fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi ishatin radia wa amma man xaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya loolu mooy naqiir yàlla nag nee na du ma la tooñ lu toll noonu ndax man yàlla buur la boo xam ne du ma tooñ mu ne wa man ahsanu ana kan moo gën a rafet diinan diine mim man waa ji nga xam ne aslama jébbal na wajahahu jëmmam lillahi yàlla ku jël boppam jox yàlla kan moo la gën a rafet diine waaye ki jël boppam jox nit ki jël boppam jox garab ki jël boppam dénk ko ay armeel ay bàmmeel ki jël boppam dénk xeer ki jël boppam dénk ay lam ki jël boppam dénk ay buum ngay gis benn waaye boo xam ne ay buum la takk mooy buum yee may garde ndombo yi moo may garde loolu dafa am njëriñ ngay jël sa bopp nga jox yàlla ana yàlla ayna allah ana yàlla ba ngay takk ay wëñ ana yàlla ba ngay takk lam ana yàlla ba ngay takk ay ndombo ana yàlla wa man ahsanu diinan kan moo gën a rafet diine mimman waa ji nga xam ne aslama jébbal na wajahahu jëmmam yépp lillaahi ci yàlla ba pare wa huwa muhsin moom waa ji yemu ci loolu de muhsin mu ngi rafetal jaamu yàlla am lépp lu muy def ci jaamu yàlla da nga koy gis mu koy def ci ay geste yu rafet kii kan moo ko gën ëpp tuyaaba waa ji yemul ci loolu ba tey de wattabaa mu topp millata ibrahim yoonu yonent yàlla ibrahima la topp hanifa ibrahima moom yoonam mooy jeng ci lépp lu bon jub ci lislaam moo tax ñu ne diine ibrahim mooy hanafiya loolu mooy diine ibrahim ibrahima musta nekk bokkaalekat waaw ibrahima du yahud ibrahima du nasaraan ma kaana ibrahim yahudiyan walakin kaana hanifan musliman walam yaku min al mushrikin allahu akbar yàlla nee na ibrahima mësta nekk ci bokkaalekat yi mësu cee bokk moom lan la mësa nekk jéng ci lépp lu bon jub xocc ci lislaam moo ndax du hasard yàlla ne wattaxaza allahu ibrahima xali ibrahima sama xarit la ibrahima déclaré na dëkkam yëpp guerre waaw déclaré na ndeyam ak baayam guerre jàng ngeen ko ibrahima doon na topp papaam di ko daawa topp yaayam di ko daawa ibrahima daawa na seen waa dëkk ñu génn ibrahima sànni ko ay xeer terewul ibrahima découragé wul moo dañu tuddee ibrahima abul anbiya yonent yëpp ginnaaw nuux aadama ibrahima mooy seen baay yonent yi genn wàll gi yëpp ibrahima moo leen jur ñëpp ci ibrahima lañ génne ba ci yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wassalaam kon mbokk jullit yi ku bëgg a nekk xaritu yàlla ku bëgg yàlla bëgg la ah tëdd di nelaw de du ko maye kon nga def dara de borom bi nee na wattaxaza allahu yàlla jàpp na ibrahima ibrahim xalilan muy xarit waaw waaw waaw kii am na lu gën amul de xalil almuhib mooy ku ku ñu bëgg allazi taxallala xubbuhu masaliku nafs wa huwa akbaru min alxabib allahu akbar su ngeen demee yonente bi muy dem leylatul isra wal miraj fekk na Ibrahima fan ban asamaan ban asamaan la yonent bi fekk Ibrahima sama montre yi war naa ko indi waada ak kaal ak kaala yi ak parfum yi ak téere yi ñiy tontu question yi ñu leen di jox Ibrahima asamaan boobu nekk lu mu fay def naa denc question yi ba samedi insha allah bu may ñëw may indaale kado yi insha allah naa ko denc ba samedi sunu borom ne walillaahi ñeel na yàlla yàlla moom maa fi samawaati li ci asamaan wa maa fil ardi ak li ci suuf ci jaam yi ak mbindeef yépp yàllaa ko moom wa kaana allahu yàlla mosta deñ muxiitan di peeg bi kulli shay'in lépp lépp yàlla daf ko peeg xam ngeen peeg ah mooy wër ndombo yàllaa ko moom wallahu min waraihim muxiit lépp yàlla daf ko peeg wallahu bi kulli shay'in muxiit lépp yàlla nee na dama ko wër acca ku bëgg rëcc rëccal ku bëgg daw dawal na benn waaye dugg ci benn fenêtre daw allahu min waraihim muxiit dégg nga fii mu ne wa kaana allahu bi kulli shay'in muhit li ngay jëkk a dégg mooy mënumaa raw yàlla kon ndax yàlla nee na lépp laa peeg amul loo xamante ne sama nguur gi man yàlla peeguma ko ci dara hadisul qudsi bi ne yow sama jaam boo nanguwul man yàlla ma nekk sa borom bul dox ci sama kaw suuf bu la sama asamaan tiim demal nga jaamu ji beneen yàlla bu dul man ayo kan ci ñun moo mën a dox te asamaan du la tiim yëkkati sa loxo kan ci ñun moo mun a dox fu amul suuf yëkkati sa loxo aywa takkal say bagage soo meree sa papa seen kër yenn saa yi nga takk say bagage yenn saa yi nga gis jigéen ju mere jëkkëram takk ay bagage am foo jëm ngay ñibbi wala parce que ku mere yàlla takkal say bagage ñu xool foo jëm wallahu bi kulli shay bi kulli shay la wax looy dégg foofu lu mu mën a doon waxuma la yow rek lu mu mën a doon bi kulli shay ku mu mën a doon muhiit yàlla da laa peeg munoo buuse munoo rëcc yàlla seconde tarfatal ayn kon nañ xam ne yàlla du sunu morom waaw kon yàlla mooy kan ci ñun yàlla kàttanam ak dooleem ak nguuram xejul ci ñun loola tax ñu war a xam sunu borom ñu jox ko njukkal dellu jaamu ko sant ko topp ko gërëm ko ñaan ko moom yàlla tabaraka wa taala mu sëmbatal yërmandeem sunu kaw mbokk yi loolu mooy darsu tey assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh